waaw waaw parce que mooy mooy lu ma la wax xam nga tey nit un jeune tey bu yàkkantee gis ne adduna bi. ah son sont pressés. waaw am noo am na si. parce am na tey ñoo xamante ne tey jii ñuy liggéey am na ñu revenu mais dañuy jàpp ne bu ñu demee revenu bi day yokk dañuy jàpp ne bu ñu demee tekki bi day gaaw dañuy jàpp ne bu ñu demee ñëw. Hmm. dinañ tabax dinañ dawal oto. wax naa la ko ma ne la ñu si ëpp tey les 500000 qu'ils ont déboursé keneen joxu leen ko ñoom ñoo ko liggéey ñu si ëpp. am na ci waaw voilà. Hmm. ñoo ko léegi kon tey Sénégal réew mi boo fi liggéey ba am 5 millions. boo fi liggéey ba am 5 c'est parce que am na si lu dëggal li nga téye ñu mën a am 5 millions nag bëriwul. bëriwul ñu mën a liggéey ba am 5 millions bëriwul mais Nicaragua c'est des milliers de jeunes ñu fa dem. tey tey dem voilà c'est képp léegi aujourd'hui l'État lu mu war def def na ko c'est vrai que aujourd'hui ñëpp xam nañ ne il y a des problèmes qui existent je serai pas là à dire que au niveau de la gestion des problématiques des jeunes. Mm-hmm. lépp tout est rose du ma ko wax. Mm-hmm. il y y' a de jeunes yoo xamante ne tey ñuy xaar liggéey amuñu liggéey loolu mooy dëgg mais aussi il faut aussi reconnaître les efforts que l' État a consenti depuis 2012 lorsque le président est arrivé. Mm-hmm. teg na ay structures yoo xamante ne accompagné na des milliers de jeunes. tey jii si tu fais le tour du Sénégal dans tous les secteurs l'artisanat le milieu de la pêche le milieu agricole mhm. le milieu de l'entrepreneuriat il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui yoo xamante ne ils ont réussi à mettre sur pied leur propre business di si gën à travers Merci. ces structures que l'État a mis sur pied bu ñu jëlee la dernière la la la dernière fois quand mmh. après les événements de de de de de mars 2021 le président de la République a fait un face-à-face avec la jeunesse sénégalaise il a parlé à cœur ouvert avec la jeunesse sénégalaise jël toute une journée. waxtaan ak ñoom ba pare teg maa ñëw ba pare ba pare teg 65000 emplois. Mhm. loolu day wone ne encore une fois mooy lan day wone ne tey jeunesse bee bëri te loolu la ñuy ñaan parce que tey suñu réew. Mhm. xam nañ ne am nañu pétrole am nañu gaz am nañu suuf te incha allahu rabi. à travers cette vision. ambitieuse que le président de la République est en train de mettre en œuvre inchallah en 2024 avec notre nouveau candidat dinañu continuer développer ce pays. Mm-hmm. tous ces jeunes là dinañ xam ne ne l'intérêt et l'espoir c'est au niveau du Sénégal.